Serigne Makumba Kebe Serigne Makumba Kebe mi ngi feeñ jamono ci atum ci dëkk bu ñuy wax Jaawar Saar Jaawar Saar mi ngi ci suuf si nag di Njàmbur ci région de Louga ci dëkk boobu nag di Jaawar Saar la Serigne Makumba Kebe feeña jamono di doomu soxna Faati Faal ak ku ñuy wax ma yoro Kebe moom ma Makumba Kebe nag am na kenn nag kum bokkal waajur wu jigéen te ñu waajur wu góor muy ku ñuy wax soxna Aram Jaag Mbay soxna Aram Jaag Mbay mii mu bokkal waajur wu jigéen nag am nag njaboot ñu mën cee ràññee soxna Faati Bintu Saar doomu soxna Aram Jaag Mbay la Sarr doomu soxna Aram Jaag Mbay la soxna Anta Sambu Sarr doomu soxna Aram Jaag Mbay la ak ku ñuy wax Sëriñ Moodu Maxtaar Aram Jaag Sarr doomu soxna Aram Jaag Mbay la njaboot gi nag la soxna Aram Jaag Mbay am njaboot ji mu am itam nag ñaari bant yi rek ñoo ci am ak njaboota muy soxna Seynabu Sarr moo meññ ku ñuy wax soxna Aram Jaañ soxna Aram Jaañ mii mi ngi kër kàbbu doomu soxna Aram Jaag Mbay bii ñuy wax soxna Anta Sambu Sarr moo meññ ku ñuy wax Sëriñ Cheikh Ñas Sëriñ Cheikh Ñas nag mi ngi ci dëkk bii nag di Louga loo kon sët yii nag ñooy sëti soxna Aram Jaag Mbay mii bokk ak sëriñ Makumba Kebe benn waajur wu jigéen di soxna Faati Faal moom sëriñ Makumba Kebe nag waajuroom wu jigéen wi nag di soxna Faati Faal ginnaaw bu sëriñ ma yore Kebe mi meññ sëriñ Makumba Kebe génnee àdduna soxna si nag dafa nekkoon boroom barke nekkoon itam nag ko yàlla may tax na nag bi sëriñ Makumba Kebe nag jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Seexul Xaadim nag foboon na waajuru sëriñ Makumba Kebe mii nag di soxna Faati Faal jébbal ko sëriñ Balla Badiane nag ngir mu dëkkoo ko sëriñ Balla Badiane itam nag bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku Fall mi di waajuru sëriñ Makumba Kebe ci loxoy sëriñ Balla Badiane nag la génnee àdduna ci dëkk boobu nag di kër kàbbu ñu denc ko nag ci armeer yu mag yi ci ginnaaw nag bu fi sëriñ Makumba Kebe bàyyi ko waajuroom wu góor wi nag di sëriñ Mayoro Kebe moom sëriñ Makumba Kebe laataa sëriñ Makumba Kebe di xàmmee génn na àdduna waaye sëriñ Mayoro Kebe nag am na ñu mbokkal waajur wu góor ñu mën cee ràññee kuñ doon wax sëriñ Masaar Kebe sëriñ Masaar Kebe mii nag moo meññ ku ñuy wax sëriñ Ibra Kebe ci Daaru Njaay moo nekk sax chef de Daaru Njaay bi ak kuñ Makumba Kebe ak ku ñuy wax sëriñ Mbay Kebe sëriñ Masaar Kebe mii nag bi fi sëriñ Makumba Kebe bàyyi ko ak njabootam nag ñoo doon sëriñ Makumba Kebe ci wàllu meen ndax ñoom ñooy nag ñi gën a jege nag sëriñ ma Makumba Kebe ndax seen waajur ak sëriñ ma Makumba Kebe ñoo bokk benn waajur njaboot gi nag ñoo séq sëriñ ma Makumba Kebe moom sëriñ Makumba Kebe nag bi matee dal alxuraanul karim tombeeg waajuram woon nag sëriñ ma Mayoro Kebe génn àdduna waajuru wu jigéen wii fi desoon nag di soxna Faati Faal jàngulul doomam ji nag alxuraanul karim ndax barke ak bëgg benn bu góor la nag ci waajuram wu jigéen waajuram wu góor wa mu ko doon xoole itam nag génn na àdduna soxna Faati Faal nag du gëme doomam ji nag di sëriñ Makumba Kebe loolu itam nag tax na bi sëriñ Makumba Kebe matee dal alxuraanul karim waajuram wu jigéen wi nag jàng lu ko alxuraanul karim mu wéy nag des nag ci roon waajuram wu jigéen woowu nag ci dëkk boobu nag di jaawar saar di soxna Faati Faal soxna Faati Faal nekkoon itam nag ko am barke nekkoon itam nag borom wërsëg li ñu tudde woon ak jur nag am na ko tund woowu it nag di jaawar saar ñëewu fa woon kenn tax na doomam ji nag di sëriñ Makumba lépp loo xam ne nii bëgg na ko waajuram wu jigéen wi am na ko mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di jaawar sar ci ron waajuram soxna faati faal ba ni sëriñ tuubaa seexul xaddim taxawale liñ tudda yoonu murit ci dëkk boobu nag di mbàkke kajoor caatum 1883 seexul xaddim nag def na mbàkke kajoor ab diir bàyyi koo fa nag ñëw ci dëkk bu sell bi nag di mbàkke bawal ginnaaw mbàkke bawal daaru salaam ginnaaw daaru salaam tuubaa bi seexul xaddim sancee tuubaa nag ba am fi ay at nag la sëriñ alin loo nekkoon nag ci dëkk boobu nag di jaawar saar bàyyi koo woon Sarr ñëw jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nekk nag am murit ginnaaw bu sëriñ Alioune Lo nag jógee waatee dëkk bu sell bi nag di Touba waatoon nag ci dëkkub cosaanam boobu nag di Jaawar Sarr la fa gisanteeg sëriñ Makumba Kebe mii melokaan nag wu sëriñ Alioune Lo meloon ak nag jikko nag ju sëriñ Alioune Lo yore woon tax na kii di sëriñ Makumba Kebe nag bàyyi ko xel bàyyi xel googu ko nag sëriñ kumba Kebe bàyyi xel moo tax nag mu laaj sëriñ Alioune Lo moom fan la nekkoon ba barke bii mu am wala yiw wi am nekk ci moom fan la nekkoon ñëw nag di ko xamal ne ku ñuy wax seexul xadiim mu ngi ci dëkk bu ñuy wax Tuubaa ci moom daal la nekkoon ba tax na daal ku ko gis bëgg ko gii ko dal ci kooku nag la ko jëlee ma wax leen lan moo indi sëriñ Makumba Kebe nag ci ëttub ko baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasuul ginnaaw bu mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di jaawar saar di doomu soxna faati faal soxna faati faal miy waajuram nag nekk na ko amoon wërsëg nekkoon itam na ku waa dëkk boobu nag di jaawar saar na woon ku ñuy wax sëriñ Alin Lo nag moo jóge woon ci dëkk boobu nag di jaawar saar ñëwoon nag jaayantee ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim di Touba ginnaaw bu mu jógee Touba nag delluwaatoon nag ci dëkk boobu nag di Jaawar Saar moom Serigne Aline melokaan woowu mu amoon ak jikko jooju nag mu yore woon loola nag duggoon na Serigne Makumba tax nag mu doon laaj Serigne Aline Lo nag lii mu mel ak lii mu am nag fan la ko jëlee Serigne Aline Lo nag mi ngi ko doon xamal ne daal ci ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasool nag laa ko jëlee kooku nag mi ngi ci dëkk bu ñuy wax Touba Serigne Makumba Kebe nag doon na xamal Serigne Aline Lo est moom buy dellusiwaat nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba dana mën a ànd nag doon na ko xamal sëriñ alinloo Lo nag jóge waatee Diawar Sarr doon dellusiwaat ci dëkk bu sell bi nag di Touba àndoon nag sëriñ Makumba Kebe ngir mu jaayante ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ginnaaw bu sëriñ Makumba Kebe nag ñëwee Touba fekk fi ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag nanguloon na ko ak njébbalam ba tax na nag ma Makumba Kebe nekkum murita kon lii moo indi nag sëriñ Makumba Kebe nag ci yoon wi mu jaayante ak Seexul Xaadim nag nekkum murit mu wéy nag des nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba di muritu di liggéeyal ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci yoon wi mu taxawal nag di mouridisme ca dëkk boobee nag mu feeña jamono nag di jaawar saar coow lu rëy itam nag la fa bàyyi ndax waajuram wu jigéen wi nag di soxna Faati Faal bëggul woon nag sëriñ Makumba Kebe sori ko ba tax na bi sëriñ Makumba Kebe ma tee sax jàngalu ko jaaxle googu mu amoon nag waa tund woowu nag di jaawar saar rawatina nag dëkk boobu nag sëriñ Makumba Kebe feeña jamono nag di jaawar saar ñoom itam nag doon nañ jàppale seen jigéen boobu ci doomam ji nag wuy si ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nijaayu sëriñ Makumba Kebe di magu soxna Faati Faal di kum doon wax nag sëriñ ma faal ngóone moo doon xamal nag soxna Faati Fall di ko wax ne daal moom bis bu amee ab yóbbal dana doxe nag jaawar saar ba Touba jël si nag sëriñ Makumba Kebe ginnaaw buñ ko waajalee moom nijaayu sëriñ ma Makumba Kebe di sëriñ ma Fall Ngóone pour mu jël si nag jarbaatam bii nag di sëriñ ma Makumba Kebe ci loxo yi mu nekk nag di Seexul Xadim ginnaaw ba sëriñ ma Fall Ngóone nag jógee ci dëkk boobu nag di jaawar saar ñëw nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba bi mu egsee Touba nag ci Daarul Xuddoos nag la Seexul Xadim nekkoon jamono jooju sëriñ ma Fall Ngóone nag buñ laaj na nag ana sëriñ Makumba Kebe ñu di ko xamal nag jamono jii nag dafa dem tool fii ak boori bëccëg nag sëriñ ma kumba kebe nag dana ñëw bu ma kumba kebe nag wàccee tool bañ yëgal ko ne daal sa nijaay sëriñ ma faal ngóone nag mi ngi lay seeta bi mu ñëwee nuyonteeg moom nijaayam nag mi ngi ko doon xamal ne sa waajur wu jigéen wa lekkatul naanatul boobaak léegi na xamatul ci lan nga nekk bëggul woon nag nga sori ko sëriñ ma kumba kebe nag mi ngi doon xamal nijaayam ji daal di ko wax ne moom daal lii mu gis te bëgg ko fii ak jotu du mën a delsiwaat nag ci ron waajuram woowu sëriñ aareloo nag ñëw na waxtaan ak nijaayu sëriñ ma kumba kebe bi nag di sëriñ ma faal ngóone di ko xamal ne man kay yow nga jaayante si laa doon wax waaye jële sëriñ Makumba Kebe ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom du xalaata waaye lépp nag bàyyil nag ba Seexul Xaadim ubbi nga yëgal ko nag lan moo nekkoon say tànk sëriñ Alioune nag mi ngi doon xamal nag sëriñ ma faal ngóone di ko wax ne nag lii yoonu muridin nag dafa am ay sart ginnaaw bu Seexul Xaadim ubbee nag nuyu ko comme niñ koy nuyoo te lépp lum la laaj itam nag nanga ko tontu bi Seexul Xaadim ubbee nag bañ yëgal ko ne nijaayu sëriñ Makumba Kebe nag mi ngi fi Seexul Xaadim nag sàkk na nag ci sëriñ ma faal ngóone ngir mu ñëw faal ngoone ñëwee nag ba gisante ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool ba noppi seexul xaadim nag mi ngi ko doon laaj lan moo nekkoon say tànk sëriñ ma faal ngoone nag di ko xamal ne dama bëggoon a jaayanteeg yow seexul xaadim ko lu mat ñetti yoon waaye saa bu ne daal ma faal ngoone mi ngi koy xamal ne dama a jaayanteeg yow sëriñ ma faal ngoone nag bi muy jóge jaawar saar di ñëw tuubaa jël si woon jarbaatam bii nag di sëriñ ma kumba kebe moo ko yëkkati woon waaye bi mu gisanteeg seexul xaadim ba seexul xaadim laaj ko mi ngi ko doon xamal ne daal tànk yi fi indi woon gone yi bañ nekk fi tànk yooyu nag laa bëgg a si muy jaayanteeg yow ginnaaw bu ko seexul xadim nangulee ak njébbalam ba noppi doon na ko laaj nag nu defa kër sëriñ ma faal ngoone nag na kër ci dëkk ñaanal na ko nag ngir mu delsiwaat nag ci dëkk bi nag di jaawar saar ginnaaw bu mu jógee Touba ñëw jaawar saar ba waa jaawar saar gi ko waajaloon ngir mu jël seen doom jooju nag di sëriñ ma kumba kebe bi mu ñëwee ak loxoy ne nag doon nañ ko laaj sëriñ ma faal ngoone lan moo tax sëriñ ma kumba kebe ñëwul mu doon leen xamal ne kee mu ku ko gis la gone ko def mooy fob sa bopp jébbal ko ko waa dëkk ba nag doon nañ ko xamal ne bu ñu xamoon ne nii ngay demee nii ngay dikkee duñ la waajal sëriñ ma faal ngóone daal sax ci ne teemu jàkkaarlool ci Touba képp ku jàkkaarloo woon ak moom la gone ya def nag da nga ko def sëriñ ma faal ngóone moomu nekk nijaayu sëriñ ma kumba kebe moo meññ ku ñuy wax sëriñ ma ndumbe faal sëriñ ma ndumbe faal moo meññ sëriñ moor jaañ faal ak ku ñuy wax sëriñ di faal ñoom ñaar nag ñu ngi ci dëkk bii nag di kër kàbbu seen maam jooju nag di sëriñ ma faal ngóone moo nekkoon nijaayu sëriñ ma kumba kebe sëriñ ma kumba kebe teewee nag wéy nag nekk ak Cheikhul Khadim ba ni Serigne Touba Cheikhul Khadim demee ci géej gi ci atum 1895 bi Serigne Touba Cheikhul nag di dem ci géej gi ci atum 1895 Serigne Makumba Kebe ci ñi Cheikhul Khadim boole woon ak maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke Ndaamal Daaru nag ci la bokkoon ci loxoy maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke Ndaamal Daaru nag la wéy nekk ba ni ko maam Thierno Ibrahima Fatim Mbacke Ndaamal Daaru gërëmee laataa Cheikhul Khadim nag di ñibbisi ci géej gi ginnaaw bu mu jotee ngërëm ci loxoy maam na Ibrahima faati Mbacke Ndaamal Daaru dafa dem nag ci dëkk bu ñuy wax Salim Sarr Salim Sarr gi nag mi ngi ci wetu dëkk bu ñuy wax Gànjool mbooloo mi njëkk a jaayanteeg sëriñ ma Makumba Kebe sax ci dëkk boobu nag lañ jaayanteeg moom mu toll nag ci ñetti doomu aadama muy kuñ doon wax sëriñ Moustapha Sarr ku ñuy wax Ibrahima Diop ak sëriñ Malamine Niass ñetti taalibe yi nag ñoo njëkk a jaayanteeg sëriñ Makumba Kebe ci dëkk boobu nag di Salim saar ci dëkk boobu itam nag la wéy nekk ba ni sëriñ Touba Seexul Xadim jógee ci géej gi ci atum 1902 ci dëkk boobu itam nag la jóge ñëw ziyaare si ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasul mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di sallim saar di yar di jàng ak di jàngale comme kan ni ko yoonu murit nag baaxoo nag di defee ginnaaw bi nag jóge na ci dëkk boobu nag di Salim Sarr dem nag ci diggante Mbuur ak Cees dëkk bu ñuy wax Xabaan mu sanc fa nag ab dëkk bu mu tudde nag Kër Makumba Kër Makumba googu nag la bàyyi ko ñëw njaareem nag seet si ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul doon ko yëgal ne nag dañ koo jox suuf ca boori dëkk bii nag di Kédougou mu doon sàkku nag ci Seexul Xaadim nag mu ñaanal ko mu mën a dem foofa ginnaaw bi nag la ko Seexul Xaadim doon xamal ne dama laa bëgg a yebal dem nag ci dëkk bu sell bii di Touba dëkk bu ma yabal Moustapha sama moom ak Fallou Laye sama moom su ma la fa yabalee nag naxuma la te fii diir bu néew nag danaa la fa fekk lépp loo xam ne nii nag am na ndar wala am na fenn nag bañ koy coow ci dëkk boobu ma leen yabal itam nag dana fa nekk wala dana fa am lii nag moo tax nag sëriñ Makumba Kebe jóge nag ci dëkk boobu nag di kër Makumba ñëw nag sanc si nag Touba ci penku Touba nag tudde ko nag kër kàbbu ci atum ci dëkk bii ba ni mu génnee àdduna ci atum 1923 ginnaaw bu nag nekk fi seexul xaddim nag mi nga ko doon xamal ne na wut na koo xam ne nii moom moo koy sàmmal nag diine ji moom nag mu wii nag des ak donga yi di leen soññi nag ci yoon wi sëriñ mbàkke buso bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul moo ko boole woon a ku ñuy wax sëriñ saaliw kebe nekkoon itam nag ci loxoy sëriñ mbàkke buso ngir mu ñëw nekk nag ci ginnaaw sëriñ makumba kebe di wéyandil nag diine ji ak njàngale mi nag ci dëkk boobu nag di kër kàbbu ni ko seexul xaddim bëggee woon ba tax na nag bu sëriñ makumba kebe nag nekkee nag jëwriñu donga yi sëriñ saaliw kebe moo nekkoon nag ci ginnaaw sëriñ Makumba Kebe di soññee nag ci wàllu diine ji ak njàng meeg njàngale mi ba mu fi sëriñ Makumba Kebe bàyyi ci atum 1923 ginnaaw bu mu fi bàyyi ko nag sëriñ Saaliw Kebe moom nag moo ko wuutu ba ci 1933 mu nag nekk nag ci dëkk boobu nag di kër kàbbu ba ci atum 1921 mu dem nag ci suuf sii nag di daaru salaam jolof sanc fa nag dëkk bu ñuy wax Géssel Géssel googu nag la sëriñ Makumba Kebe nag mujjee sanc waaye dëkk boobu nag di Géssel itam nag dafa mujj gént ci ginnaaw nag bu fi sëriñ Makumba Kebe nag bàyyi ko jaboot guy wéyal ndonal sëriñ Makumba Kebe bareetu fi sëtu Cheikhul Xadim bii nag di sëriñ Cheikh mbake Gaynde Fatma moo bindoon lettre lenn nag njabootu sëriñ Makumba Kebe gi fi desandi woon leen xamal ne dëkk bii sëriñ Makumba Kebe sancoon nag di gésil kenn nag ci njaboot gi nag mi ngi xalaata nag wéyal dëkk ba ginnaaw nag buñ ko tontoo nag di ko xamal ne dëkk boobu daal di gésil ñoom mënuñu ko wéyal la ko sëriñ Cheikh Mbacke jël nag sancaat nag tudde ko daarul xuddoosa ci dëkk yii nag la sëriñ Makumba Kebe sancoon nag nekk ci nag di yar di jàngale di nag ndonal Cheikhul xaddiim li ba ni mu génnee àdduna moom doomu soxna faati faal bi lépp loo xam ne nii yoonu murit nag laaj na ko sëriñ Makumba Kebe nag joxe na ca wàllam geer bi ñu tudde guerre mondiale 14 18 sëriñ Makumba Kebe nag yabaloon na ñetti doomu aadama nag ngir ñu dem nag ca guerre ba ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Mayoro Gueye Modou géey Koudia ak ku ñuy wax Abdou Ndongo ñetti ñii nag la sëriñ Makumba Kebe yabaloon ci guerre mondiale 14 18 bi ba tey itam nag ci liggéeyub sëriñ Makumba Kebe am na kenn itam nag ci njabootu ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ku leboon ab jamono jooju nag munu ko fay ginnaaw nag bu autorité coloniale yi nag doon xamal Cheikhul Khadim di ko wax ne nag kenn nag ci sa njaboot nag ameel na ñu ab oto dañoo bëgg nag mu fay ñu Cheikhul Khadim nag ma Macoumba Kébé nag la fayloo woon oto ba bu ma Macoumba kebe demee Ndar laaj autorité yi oto ba ñaata la bañ xamal ko ko ba mu ñëw fay ko ba noppi ci kayit bi ko tubaab bi joxoon nag doon ko xamal ne fay nga oto bi ba noppi saye nag la ko tubaab bi waxoon saye jooju nag Serigne Macoumba Kébé nag daa na ko wax nag lu baree baree baree baree bari ci nekk nem daa wax ne ginnaaw bu mu fayee oto ba nag ci ndigalul Cheikhul xadim ba noppi tubaab bi sayee la ko waxoon bi mu dellusiwaatee njaareem nag ba yëgal seexul xadim di ko xamal ne fay na oto ba seexul xadim nag mi ngi ko doon xamal moom ma Makumba Kebe suñ borom sant na la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam itam gërëm na la man mii nag di seexul xadim gërëm naa la ba tey itam nag ci jëfi sëriñ Makumba Kebe ci dëkk bu seeli bii di Tuubaa itam nag seexul xadim daana ko fi liggéey loolu bare bare bari ba tey ci kiimaani sëriñ Makumba Kebe bi seexul xadim demee ci géej gi tubaab bi nag doon bind ay lettre nag waa Sénégal di leen xamal ne kiñ fi jële woon di Ahmadou Mbacké génn na àdduna nag ci dëkk boobu di Gabon bañ denc ko fa wax jooju nag jaxase woon na nag lenn itim nag ci mag ñi am na ñu ko gëmoon am na ñu ko weddi woon sëriñ Makumba Kebe nag am na bis nag mu wax maam Cerno Ibrahima Faati Mbacké ndaamal daaru ci coow loolu di ko wax ne bi ci guddi gént naa ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul watoo ci dëkk boobu mu nekk nag di Gabon yónnee ko nag ci réew mi nag di Sénégal wax jooju nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbacké ndaamal daaru déggewu ko woon ak nopp yu tëx ginnaaw buñ ci tegee ay fan nag la yóbbante boobu ñëw Seexul Xaadim doon xamal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ne ay barkeelu la na ko lenn nag ci mag ñi tim nag séddoo sëriñ Makumba Kebe nag jotoon na ca wàllam ca lam ca jotoon nag ak ndoom ak baat nag la ko defoon nag di ko takk kon loolu itam moo waral nag ndoom ak baat nag gi sëriñ Makumba Kebe daa takk ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1923 lañ ko dencaaléeg ndomba ga diitim nag jaar na ci ak Seexul Xaddiim wala jaar na ci ci bi tubaab bi dee bind lettre mag ñi doon leen xamal ne Seexul Xaddiim des na ci Gabon sëriñ tubaa xaadim rasuul ñu mën cee ràññe maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi seexul xadim di dem ci géej gi ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la nekkoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam nag moo ko gërëm laataa seexul xadim nag di ñibbisi sëriñ Babacar Njaay cargaan ku jaxasoo woon nag sëriñ ma kumba Kebe la dëkkam boobu nag di géssel ak mayeluk sëriñ Babacar Njaay cargaan soréewuñ tax na daanañ seetante daanañ fekkante aku lëre gu yaatoo yaatoo itam nag ñaari jëmm yooyu amoon nañ ko sëriñ nekkoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon nag sëriñ Makumba Kebe la fu bare bare bare itam nag ànd nañ ca sëriñ Balla Badiane bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul dëkkam boobu nag di Mbadiane ak kër kàbb itam nag suréewuñ waajuru sëriñ Makumba Kebe wii di soxna Faati Faal Seexul Xaadim nag moo sàkk woon ci sëriñ Balla Badiane mu dëkkoo ko ak relation nag ñaari jëmm yooyu nag amoon nañ ko sëriñ Mbàkke Buso ku jaxasoo woon nag sëriñ Kebe la bi mu génnee àdduna Seexul Xaadim sëriñ Mbàkke Buso nag la wax mu taxawu sëriñ Makumba Kebe Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasoul bu jaxasoo woon ak Serigne Makumba Kebe la bi Serigne Touba Seexul Xadim di yabal Serigne Makumba Kebe ci dëkk bu sell bi nag di Touba mi ngi koy xamal na dëkk bu ma yabal Cheikh Mamadul Moustapha sama moom ak Fallou Laye sama moom soo fa demee nag duma la nax fii ak diir bu néew itam nag danaa leen fa fekk te lépp loo xam na ni nag am na ci dëkk nag bu ñuy coow dana am nag ci dëkk bu sell boobu nag di Touba tax na kóllëre googu mu séqoon ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ak Cheikh Mamadul Fadal Mbacke doomu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke bii ñuy wax Serigne Ahmadou am na kër ci dëkk boobu nag di kër kàbbu doomu cheikh mamadul faadal mbàkke bii ñuy wax sëriñ sërifu mbàkke kër gi sëriñ makumba kebe dëkkee woon ci kër kàbbu ci kër googu itam fa la génne àdduna kër googu sëriñ sërifu mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke moo fa dëkkee jamono jii mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di kër kàbbu ak dëkkam boobu nag mu mujjee sanc nag di gësel ba nim génnee àdduna ci atum 1923 doomu soxna faati faal ja di sëriñ makumba kebe mu ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci dëkk boobu gàbbu ci bisub altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu ci atum 1341 ci gàddaay gi altine ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu ci atum 1341 ci gàddaay gi dëppoog muy lundi 16 avril 1923 lundi 16 avril 1923 ci nekkinu nag kam yaakaaroon di ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ginnaaw buñ ko yëgalee nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul booba nag mi ngi njaareem ci résidence surveillée seexul xaadim doomu nijaayam ja nag sëriñ mbàkke buso nag la yabaloon ngir mu taalibeem boobu di sëriñ Makumba Kebe sëriñ Mbàkke Buso moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam ba noppi nag ba yëgal ko ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul ci njaareem seexul xaddiim nag mi ngi doon laaj ba xam sëriñ Makumba Kebe bàyyi na fi njaboot waaw wala déet ñu di ko xamal ne daal sëriñ Makumba Kebe nag bàyyi fi doom seexul xaddiim nag doon xamal nag ñim doon laaj laaj bi leen wax ne moom de foogoon na ko ne sëriñ Makumba Kebe bàyyi wu fi doom ba tax na nag li liñ tudde seexuk sëriñ kumba Kebe day daal taxaw nag ci at moom nag di atum 1920 2023 waaye nag Cheikhul Khadim foboon na ki nga xam ne nii moom la ko sëriñ Mbàkke Buso joxoon ngir nag muy taxawu sëriñ ma Makumba Kebe ci wàllu diine ji ak lépp loo xam ne nii nag war na ko nag ci njabootam ci wàllu diine muy sëriñ Saaliw Kebe mu wéy nag yoran ni nag ndonal sëriñ Makumba Kebe ci dëkk boobu nag di kër kàbbu liñ tudde xalifay sëriñ ma Makumba Kebe ak njabootam di ay mbokkam nag ñoo koy doon nag ci dëkk boobu nag di kër kàbbu ci atum 1923 ba ci atum 1933 sëriñ Saaliw Kebe di ki nga xam ne nii moom la ko Cheikhul Khadim nag di kër kàbbu moo ko fa wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Makumba Kebe mooy ko ñu doon wax sëriñ Moodu Kebe moo ko wuutu nag ci atum 1933 ba ci atum 1937 ñetteelu nag xalifa di ki toog toogaayu sëriñ Makumba Kebe wuutu ko itam nag ci dëkk boobu nag di kër kàbbu di wéyandil nag ndonal kër kàbbu mooy ku ñuy wax sëriñ Souleymane Kebe moo ko wuutu ci atum 1937 ba ci atum 1983 ñeenteelu xalifa sëriñ Makumba Kebe mooy ku ñu doon wax sëriñ Jurbel Kebe ñu tudde ko ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko wuutu nag ci atum atum 1983 ba ci atum 1992 juróomeelu xalifa sëriñ Makumba Kebe di wéyandil nag ndonal sëriñ Makumba Kebe ci dëkk boobu nag di kër kàbbu mooy ku ñu doon wax sëriñ Cheikh Kebe moo ko wuutu nag ci atum 1992 ba ci 2006 2006 ba nëgë ni nag ku ñuy wax sëriñ Fàllu Kebe nag moo fi nekk di wéyandil nag ndonal kër kàbbu loolu ñu koy ñaanal nag mu yàgg nag ci toogaayu kër kàbbu googu ak mbooleem nag ñim séqal sëriñ Makumba Kebe ak nuñ ci man di bokkee nag sëriñ Makumba Kebe nag am na bis nag waral muy bis bi mu génnoon àdduna di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu bis bi nag saa bu delsiwaatee ci at mi sët yi mu fi bàyyi ak njaboot gi mu fi bàyyi itam nag danañ ko wutal bis boobu nag di ko ci fàttaliku ndax bis boobu itam nag lañ ko mujjoon a gis bis bi ñuy fàttaliku sëriñ Makumba Kebe nag ci màggal mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu bis bi itam nag ñu ngi koy amali ci dëkk boobu mu sancoon nag di kër kàbbu ñuy ñaan ci jàmbaaru Seexul Xadim ba kañ doon wooye sëriñ Makumba Kebe ñu gën xam ci borom kër kàbbu yàlla nañ ko suñ borom fayal te yokk ay leeram nag ci barkeem jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ